Anyways.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 sœur bi mu ngi wuyoo ci turu Germaine am fanweeri at ak juróom moom daal nee ñu moo doon jéem a taal magam ji di es gujaabi Germaine di sœur bi nag ne lu tax mu def lu ni mel maanaam taal frère am boobu di es gujaabi ñoom ñaar dañoo jàppante naka noonu frère am bi daal di koy songu dajji buntu néegam attaqué si ko ak paaka ay waay naa def waay naka noonu nee na ci la riposte daal koy sotti essence taal ko ba fi mu ne es gujaa bi ma nga teeri ca l'hôpital principal bu ndakaaru ca fa ñu naan urgence bi njombel li amee la élément commissariat bu yëmbal comico dal di dem arrêté ndaw si bi ñu ko lanketee nag ndaw si nee na lu tax mu def lu ni mel mooy daa tiitoon ndax frère bi daf koo songoon nag paaka ma ne ko nag loolu wax dëgg yàlla waruloon tax nga sotti ko essence taal frère bi ñu taal nag moom kenn mënu la am version ndax état bu critique bi mu nekke waaye ma ne fitna baaxul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax li dal bi nag romb na doy waar ndax moom daal benn gengu ñetti ponkal ñoo ko jàpp daal koy dóor dóor yu metti ndax yére <laughs> nga ma mbir mi mu ngi xewee ca Grand Yoff sama mbokk artiste bi ñu lapp-lapp yu metti yi mu ngi wuyoo ci turu Anjaay mbir mi nag ni mu demee ba gaa yi lapp ko nee ñu artiste bii di Anjaay dafa doon discuter ak ñetti ponkal yooyu gannaaw bu ñu discuter ba noppi mu dal di leen wan ginnaaw dem bi mu demee dem ba ci yoon bi ci la constaté ne bàyyi na fa ay pantalon artiste bi dëpp pour jëlee ay pantalon bi mu ñëwee rek ci gis benn pantalon bi benn waa ji sol ko artiste bi daal koy laaj laaj pantalon ak yeneen ya ca des yëpp naka noonu ñetti ponkali lank ba tëdd ci naaj bi waaye ñi bari wuñ doole rek ci noonu la ñu jàppee artiste bi di Andiaye daa di koy lapp-lapp yu méttee métti ba noppi yóbbaale quarante cinq mille francs waay waay waay waay ñi ñoo mën jaay doole waay naka noonu nak ci la Andiaye artiste jëlee ci ay blessure yu méttee métti dal di dem déposer plainte am ca police bu Grand Yoff waaw góore waay ci la élément police bu gran Yoff dal di ñëwee teg loxo ñetti ponkal yooyu kenn ki di woo ci turu AAND kacca des AF ñetteel ba di UG alias Fara gannaaw ba ñu leen dégloo nag waxuñu fa dara lu leer lu dul ay xiini xaana ci lañ leen placé garde à vue ba mujj leen déféré tuuma ji ñu teg seen kaw nag ba déféré leen mooy li tubaab naan vol en réunion avec violence comme il a nuit <laughs> ma ne cey artiste xam naa ne waa ji da rek ndax coonoy artiste moo tax ma ne jàngoro ji dal réew moo gën a graw corona laa wax agent ambassade bu France bi li mu def ma romb na doy waar laa wax ndax da doon ay xale yu ndaw di am seeni image pornographique fëtalaw français bi mu ngi wuyoo ci turu Frédéric di administrateur réseau et système ca ambassade bu France ma ne lii war naa leer waay waa jooju nag nee nañ ba mu tàmbalee ñaawteefam ak léegi toll na ci fukki at di ko def nag ci réew yu bari Sénégal Paris Strasbourg Bordeaux Gabon Tunisie ba ca Roumanie laa boobu di Frédéric nag fi mu ne sept chefs d'inculpation mu ngi ci kawam hëpp le 12 bi weesu la ne cëpp ci avion ca Paris ñu dal di koy teg loxo ma ne waay mbir mi na leer laa wax waa ji li mu téléchargé ci ay vidéo yoo xam ni ay xale yu ndaw lañ ci doon def yëfum ngóor jigéen toll na ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn fichier woppaw ay fichier yoo xam ni ma ne yëpp xale yu ndaw yooyu yëfi ngóor jigéen lañ leen doon def ma ne xanaa kii école formation d'homosexuel la yoroon français bi nag ordinateur am ak portable am ñoo ko mujj daaneel bi ñu defee perquisition ci biir këram da nekk ca Bordeaux fekk nañ ci disque diiram boo xam ne moom la doon transporté ay vidéo yu bare bare bare bari ak ay waxtaan yoo xam ni mu ko doon seq xale yu ndaw yooyu Frédéric Coudon moomu nag di agent ambassade français bi dafa créé woon benn faux compte boo xam ni mineur la ci defoon boppam di kamb ci réseaux sociaux yi mineurs yi bu leen kambee ba pare nag ba ñaawteef googu mu koy doxal ci ñoom ab caméra espion la leen doon filmer ma kii dafa mel ni mission bi mu yoroon mooy former ay homosexuels ici au Sénégal moo tax réew mi da ngay jékki-jékki seen ñu naan xale bii liil xale bi lii fekk xale bi fi ñu ko jaare ak fi mu jaar mu dal la ñu waroon a xool ma lii war naa leer de mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz